jërë ngeen jëf damay ñëw di àddu ci information bi nga xam ne tàmbali nañ ko joxe ci diggante bi ak tey di wax ci le golden boy Maria Sin Maysa Bigué Mar le fils de Thione et de Diaga di Wally Ballago Seck ñuy wax ni day waaj a takk deuxième femme te kii di Amelia bokkoon ci Siri lay waaj a takk ah man daal xam naa ci dara vingt 2024 bii dafa dikk indaale ak ay alxayreem mbokk bi dëgg la wala du dëgg déglu sama kàddu yi bu baax di nga xam lan moo waral kàddu yi boo paree ma posé la question nga wax ma sa xalaat ci commentaire yi mbokk mi bu dee gan nga ci page bi laalal abonné bés cloche notification ndax mboolem vidéo bu ñu dugal nga mën see jot ci lu gaaw fii mooy tiim Tim Top Cas 221 lépp luy actualité cas xew ci réew mi fii lañ koy daal di traité ba mat sëkk tey cas bi ñuy traité nag di kaaw Wally Ballago Seck ak Amy Léa dañuy marié kañ ñi ne ma samdi information bi nag ku ci nekk di ci àddu ñi naan dëgg ñi naan du dëgg mais nag avant mariage xanaa sax relation dina am mbokk yi Amiléa ndax nekkoon na ak Wally Ballago Seck en relation loolu moo jar a laaj est-ce que Amiléa bëgg na Wally Seck loolu moo jar am nañ complicité ndax lan Amiléa buñ fàttalikoo fan yee passé bokkoon na ci benn clip bu Wally nag bokk na ci clip yoo xamante ne euh, ci ci clip bu Wally yu gën a nice yu gën a aare ci la ci la Amelia bokk muy euh, wurus bi nekkan na boo xamante ne tey ji Amelia ñëw ci ànd ak tamit yeneen actrice bokkoon nañ ci ci ba clip bi tamit am ñu naan Amelia Wally Ballago Seck dañoo nekk en relation nii nii patati patata euh, mbokk yi Wally Seck doomu aadama la am na droit gis kenn bëgg ko Amelia jigéen la kon jigéen Sénégal ni ñuy mel am nañ droit gis ko bëgg ko pour man foofu jarul polémique jarul wax ji di bëri kañ la ni suba nañuy toog xaar suba ndax mariage bi dina am am du am am sax ñuy wax ni kii di Soxna ay dara ndax dina nangu boobee mariage lan moo ko waral ñi naan moo ko Wally Ballago sekk fi ñuy jaar mais Soxna Aidara jigéen la doon na royukaay musuñu koo dégg ci coow musuñu koo dégg ci ñàkk fayda néew na sa jëkkër nekk ak ak euh, artiste bu mag ci réew mi Euh, nga boole pat yar yaru na tey na musuñu koo dégg ci affaire de nanga wala nga gis ko di ko ñàkk respect tey jii boo ko xamul woon sax boo leen taxawoon nag nga koy jox respect ndax lan yar ak teggin bi mu lay wan li nga nit ki bu la wanee yar ak teggin yow mi sa jëm bopp bu yàggee na koy rus suñu ko dégg suñu ñàkk fayda kon tey jii nii même bu fekkoon ba waaye ba laa ko sekk di ko takkal wujji sax entre ñoom ñaar wala réaction ñoom ñaar lay doon mais pour man du nekk en plein publiquement di génn di wax ne nii wala nii xanaa peut-être ñi ko xam ne ñoo koy topp ngir intérêt ñooy taxaw fii naan waali warul takkal ki nga xamante ne moom moo di soxna ay dara wujju war jaarul taxgal kii ñoom ñaar la jaar nañ fu metti laataal yi di ñëw ñoom ñaar la concerné suñu borom bu dogalee que wàll day takk wàll day kenn mënu ci dara suñu borom bu dogalee que sëy boobu ñoom ñaar kase kase am wujun amul dara loolu mooy am li ma leen laaj kay moom mooy ndax d'accord ngeen Wally Ballago Seck takk Amélia am d'accord leen ñi d'accord nañu bës wii ci commentaire yi ñi d'accordul nañu bës noo ci commentaire yi maa ngi leen di bàyyi ngeen dox ak seen avis ca commentaire yàlla